face to face Siteu Papa Sow avant le 6 novembre waa jàmbaar nag nee nañu comme boole woon nañu leen yóbbu leen arène nationale ngeen def ko dóom def ko lu ko nit musul def dinañ leen boolewaat le 6 novembre waaye nag mbokk yi balaa boobu ñaari mbëri dinañ leen woo ce vendredi 30 septembre foofee ca place du souvenir Papa Sow jàkkaarloo ak Siteu ku ci nekk wax jox sa morom wax attention mbokk yi face to face bi nag sur invitation la ku ñu joxul invitation mën ngaa toog xar ko ci Lutte TV ndax en direct lay daw face to face bi nag dina am ci teewaayu CNG de lutte ndaxte nag ñun ñooy saytu làmb Papa Sow ak Siteu ñu jokkalante kaddu dem kaddu dikk rendez-vous baa ngi noonu ce vendredi 30 septembre 2022 face to face bu nara a neex ñu ànd ci ak jàmbaar production asalaamaaleykum mbokk yéen ñuy suivre seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen tey vendredi 30 septembre 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay ñu ci ànd ak journalu sunu làmb journalu record ak site bi nga xamante ne moom moo di les lesarènes.com di ci ànd nag ak mbir Mbirkilaan FM ci Saloum di ci ànd ak Vice FM ci Gambie ñu ngi leen nuyu bu baax a baax waa Mbirkilaan FM yëpp di ci jiital ki nga xamante ne moom mooy Babacar waaye Vice FM ñu ngi leen nuyu di jëmoo. di nuyu ñi nga xamante ne ñooy waa gàmm yëpp di leen ziar bu baax a baax a baax a ñu ñëw ci journalu sunu làmb ñu commencé ko ci journal suñu làmb mu xëy fësal ki nga xamante ne moom moo di Siteu fësal tamit adversaire am di Papa Sow adversaire pour le 6 novembre incha allah rabbi mu mel seen face to face moom tey jàpp nañ ko tey jii ci vendredi bi waaye nag gannaaw bañ ko waree def fële nga xamante ne moom moo di place mel ni lieu moom changé nañ ko incha allah rabbi ñëpp ñi nga xamante ne war nañ faa dem ci kanam tuuti dinañ xam fa nga xamante ne fa la ñaari mbëri war a jàmmaarloo risque nag am na ci ci retrouvaille bi nga xamante ni am na wala boog noonu la ko journal sunu làmb waxee risque am na ci retrouvaille bi nga xamante ne moo war a dox ci diggante Papa nga xamante ne moom moo di Siteu risque am na ci wala amu ci journal sunu làmb daal mi ngi ñuy wax ne camp supporter yi ñu ngi leen fay xaar waaye nag dama indi foofu ay leeral xaaruñu fa benn benn benn supporter képp ko nga xamante ne daal war ngaa ñëw ci ci ci ci face boobu da nga fa ñëw sur invitation kuñ fa invité wul boo ñëwee tamit doo dugg ci face face to bi nga xamante ne moo war a am ci diggante Siteu ak Papa Sow Siteu ak Papa la ñuy la arène nationale lu mën a xew daal tey di ngeen ko seetaan en direct cultv.com ñoom ñaar ku moom mooy sa morom bu ñu jeexalee ci Siteu ak Papa dañuy des ci ki nga xamante ni moom moo di Gaston Mbengue Gaston Mbengue nag depuis États-Unis moo ngay wax li nga xamante ni moom lay préparé amateur yi moom daal ak lu mën a xew neen instant bi moo nga fële ci États-Unis di vacance bu fa jógee nag dina ñëw ci li nga xamante ne moom la ko sénégalais yi di xaare muy ki nga xamante ne mooy Balla Gaye numéro ak Boy Niang sunu lamb ci xalim ak Iba Kane ci xalim ak Abdoulaye Dembélé laaj na ko ndax combat boobu dina am premier janvier ndax jiixi jaaxa waaye lu mën a xew nee na loolu daal bu yàlla defee jàmm rek combat bu moom ak a xew confirmé na ko pour le premier janvier incha allahu rabbi mu nar koo duppee ki nga xamante ne moom moo di Thione Seck ak lu mën a moom Gaston Mbengue waxaan ci ministre sport bi nga ne moom mooy ko bees gi jàpp na ne daal moom résultat la bëgg a def tey lu fi Matar Ba defoon rek moom bëgg naa def lu ko raw rafetlu tamit li nga xamante moom moo di liggéeyu Matar Ba ba mu ni moom la fi jógee ñu des ba léegi rek ci combat Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène na ne bu paree ci premier janvier diggante Boy Niang numéro 2 ne moom mooy Balla Gaye la muy moo di diggante Eumeu Sène ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye numéro 2 waaye Sa Thiès ak ak Reug Reug tamit combat la ba nga xamante ni moo ngi koy xaar mu war a nekk le 5 mars soq ak nga xamante moom moo di maar la tamit mu war ko def 14 janvier war a def 14 mai Forza ak ki nga xamante ne moom moo di moom moo di Franc Gaston Mbengue daal ak lu mën a xew wax na lu yaato yaato yaato yaatoo yaatoo ci journal sunu làmb ak gi nga xamante ni moom la moom la nar ci saison bi ñu dëgmal muy saison 2022 saison 2023 saison 2022 2023 liñ naan cin bu naree neex su baxee xeeñ moo tax ba mu baxee xeeñ na muy combat bi nga xamante ne taxaw na muy diggante Lac Rose ak Quench ñaar ñëpp démb jàkkaarloo woon nañ fële ci arène nationale ku ci nekk wax li nga xamante ni moom mooy sa bëgg-bëgg moom nag Quench moo njëkk wax nee na dina ko jaay doole daan ko waaye Lac moom nee na dina ko nax ba pare daan ko loolu dañ koy xaar ci mois de mars bi diggante Lac Rose ak Quench lii dañ koy xaar ginnaaw suba muy Fallou Ndiaye war ubbi saison bi diggante Ibou Afia ak jeex jàmm Siteu bu anti boo Diop numéro 2 Lac numéro 2 armée bu ndewraan mu mel ni combat yooyu daal ñoo war a tujji saison bi dimanche le 2 janvier le 2 le 2 euh, euh, octobre fële ci stadium Iba Mar jëpp Ndiaye production moo nar a ubbi li nga xamante ne moom moo di saison bi. ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb bilan yi nga xamante ne moo ngi koy defal écurie bilan nag tey école de lutte Bada moom la indi mu nekk ñu nekk ñoo xamante ne tey bëri nañ combat yu bare bare bare bare bare booy xool nombre de combats mi ngi toll ci 41 combats mu mel ne loolu ab jéego bu rëy rëy rëy rëy ñu am ci 26 victoire am li nga xamante ni moom moo di 15 défaites mu mel ne loolu yaakaar naa ni lu ama ama amam solo ndax li ci am solo rek mooy mbër yi di bëre te bëre nañ lu tolloo 41 combat mu mel ne loolu néew na loolu ñu koy gis kii moom liñ gis démb ci moom néewul ñu koy gis muy rëg-rëg mi nga xamante ne wane na boppam bu baax a baax a baax a baax démb ci arène ca ca ca MMA ba Singapour yaakaar naa ni ñëpp seetaan nañ vidéo bi digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di adversaire am mu gañe ko ci minute yu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw gaaw ñu des ba léegi rek ci journalu sunu làmb ak ki nga xamante ni moom moo moom moo di Ismaïla Lo mi tëgg combat bi nee na avant mu tëgg combat Lac Rose ak ki nga xamante ni wala boog avant muy ñëw ci milieu promoteur bi moom da doon bàyyi xel làmb da doon seetaan amateur bu mag a mag a mag mag mag la woon. ñii tamit ku leen bëgg a seetaan boo demee école de lutte Balla di nga leen seetaan muy waa école ba reprendre li nga xamante ni mooy seen entraînement pour saison bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ndax it ku ne xam na ne am na combat leen di xaar bëgg a résultat moo tax ñu teel a jóg ba jóg jotee kii tamit. jóg na ndax dafa bëgg am combat muy naaru sogaas gën nañ koo gis lool lool lool lool journal sunu lamb di ñu wax ni instant bi daal naaru sogaas xaaru dara lu dul combat bu ñu paree ci journal sunu làmb dañuy ñëw ci journal bi nga xamante ne moom moo di record journal record Abou Ndour la xëy fësal mu def jàngatam ci saison bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal moom la ñu génn bokk mu def li nga xamante ne ñoom ñi mu wax ñi nga xamante ne ñoom la jàpp ni ñoo nekk ca kaw ñi mu jàpp ni ñoo nekk ca suuf ñi nga xamante ni am nañ déce am na déception combat yi nga am na ci déception comme ni ko ñu bari waxee noonu la ko waxee muy Siteu ak Papa bi waroon am le 5 décembre te mujjee wala am Garga 2 Mama Lamine am te mujjee la am mu mel ne combat mooy combat yi nga xamante ni moo ko gënoon a bett ci saison bi nga xamante ni moom la ñu génn ñi nga xamante ni jàpp nañ daal jàpp na ne ñoo nekk au top lim na leen. muy ki nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye numéro 2 lim na ki nga xamante ni moom mooy Ada Fass lim na ki nga xamante ni moom moo di Mor Kankang waaye nag ñi nga xamante ni combat yi nga xamante ni jàpp nañ ay combat yu rëy rëy la gars yi joxe bu baax a baax moo di Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 ndax combat boobu nee na liñ ci doon xaar gis nañ ko ji Franc Sokh tamit gis nañ ne combat la bu nga xamante ne combat bu neex la combat Serigne Ndiaye ak Franc bi nga xamante ne amoon na ci sans Franc bi tamit combat boobu combat la bokk na ci combat yi ne marqué nañ ko ci saison boobu wax na na tamit xalaatam ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di CNG bi wax na tamit li nga xamante ne moom lay sàkku ci CNG bi nga xamante ne ci saison bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal Bira Sène tamit ba fi mel ni moom mu ngi wax ci mandat bi nga xamante ne mu ngi waaj a jeex ndax ndax dañ koy euh, tegaat fii ak lu mën a xew boo jëndee journal record di nga ci am ay leeral yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo les arènes point com di ñu wax ne ki nga xamante ne moom moo di Yankhoba Diattara tey dina dem fële nga xamante ne moom moo di arène nationale pour gisee ak waa CNG bi mu mel loolu lañ leen andi loolu mbokk yi bàyyi xel lu tv point com yëpp fooy mën nekk si àdduna bi ngi leen di nuyu bu baax a baax baax di leen ziare di ci jutal waa groupe Lutte TV Toutiya Sarr ñoom Omzo bu Garga Serigne Ndiour bu Osodu Mor Jaxate maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare di nuyu tamit Xaadim Bamba caatu Lutte TV di nuyu Cheikh Bass doomu ndey Pape Demba ñoom ñëpp di bàyyi xel Lutte TV groupe xew-xew làmb yi ñoom Abdou bu xarañ loo ah Abdou Moustapha ñoom organ bu far bu jar seexu yàlla yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgge bu baax a baax a baax di leen ziare Modou Baye Fall ah sama booy bi Mourou Baye Fall waxuma nag promoteur moom sama booy bi waaw Mourou Baye Fall maa koy bëggee bu baax a baax di ko ziare di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Galso 94 borom amul yàqalaate moo Ndiaye directeur Serigne Mado maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare bu wér a wér a wér di nuyu Mansour kase bu Modou Xarañ Lo ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi waaye bu leen ko fàttee Papa Sow site en lay nekk ci luttetv.com. association FILS di association pour la formation et l'insertion des lutteurs du Sénégal ñu ngi nekk en collaboration ak trois fpt di ñi nga xam ne seen yëngu-yëngu yépp mooy formation professionnelle et technique ñu fas yéene lëkkaloo nag amal seen cérémonie de remise de diplôme gannaaw ba ñu amalee formation wu 100 lutteurs ci lii di garde rapprochée ñu ne waaw li président de la république woote ci xëyu ndaw ñi ñoom waa association FILS ak 3 ni ñu ko déggee mooy ngir nga mën a prétendre emploi faaw nga am formation bi gën ci yow mel moo tax nag fas yéene fépp fu ndaw nekk ñu formé la jox la métier ba nga mën a amum xëy bi la cérémonie de remise de diplôme nag ñu ngi ko jàpp le leen 3 octobre 2022 fii ci arène nationale muy formation bi nga xam ne moom la ñu déjee le directeur de l'emploi Pape Modou Fall nga xam ne njàmbaaram ak bëgg réew ma waral ñu dénk ko bile banqaas mu ci liggéey liggéey yu am solo mareenu bile formation nag mooy madame Sophie Diallo directrice su 3FPT moom it ba mu yegsee ba léegi lépp lu son excellence bëgg ci ndaw ñi balaa moo sottal mu teg fa tànkam ñu ne invité spécial bi nag mooy Mame Matar Gueye président ONG Jamra invité d'honneur monsieur Souleymane Ndiaye directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal mooy jëm ji nga xam ne objectif am mooy na président am ndam kon mbokki Sénégal bés baa ngoog le 3 octobre 2022 ci arène nationale def ko nañu ko daan defee ngir ndaw ñi ñépp mën a am xëy waaye nag ça la présidence de monsieur Bira Sène président du CNG de lutte ki njaboote làmb yépp am liggéey di liggéey